man mii sa yaay maa la war a protéger. yow may sa taw su ma ko deful kan moo koy def. bul fàtte ne bu soo ngi fi. sa jooy yi nga jooy fii ça veut dire que lii métti na bu baax. xanaa du si joojoo rek nga jëm te waxu xale yi laa la war a wax. aw Seck doo yërëm sa bopp. waaye lii lan la lii. tey du ba sa mbokk. yow sa dara matul nga naan kilifa. na bëgg nga ne man sama dara matul. eh dimbali ma waxewu ma ko sens boobu man sa yu fi yàq yooyu nag ma ci génnee